quand tu le vois jouer en premier avec l'âge qu'ils l'ont pris 29 ans chance pour un footballeur dans un grand club comme ça il pouvait faire que réussir après il problème d'accord son entraîneur il est fatigué Je je peux être d'accord avec ça C'est ce que comprendre ci si terrain il vient, on l'amène avec un système 4-4-2 le 4-3-3 Bon, le contre Real Madrid dañ ko pour box to box C'était le meilleur joueur de ce match là. pourtant on la utilisé encore même ba à part l'Angleterre, Angleterre bi Sentinelle comme Everton et Aston Villa Bon, xoolee tey jii ne peut pas faire ma Sentinelle Bon, en 2017 c'était le premier match contre euh, la Tunisie demna bu instant bu may wax après lay laaj comment ça se fait que do wax ak ce militaire qui ki nekk sa kanam parce que c'était comme comme passoire un million en sentinelle manam plaque tournante lolou waru fu am jouer en intervalle pour pour loolu pour mu mën a fatt tur yooyu te jour boobu bu fekkone les tunisiens dañoo adroit en 2017 wallahi dinañ jël lo keroog compte te heureusement ñoo mujj a gagné 2-0 donc tay tay bi ko gisee mu def loolu ñu wax box to box football à droite wala football à gauche da ngay dem ba wax ne li lan li lan mooy poste deug deug Sadio Mané Aliou Cissé dès qu'il a compris ça en 2017 2018 gis nga ko ba 2019 lepp ci côté yi ko football loo ko nga xol yenn match yi ba ci coupe du monde bi day doon def ay matcham ba ci coupe d'Afrique bi passé ni da doon def ay matcham problème nga né Gueye moy mooy problème juste moi je pense que c'est un compétiteur mais des fois, quand il est fatigué, c'est une question qu'on qu doit lui demander. Un bon joueur, un grand joueur, il est fatigué. Il veut jouer tous les matchs, mais quand il est fatigué, il doit avoir entraîneur nan la war pour me reposer ko ne ko lan la wala affaire pour me reposer parce que day ñëw enchaîner match bi bu baax bi tey jii nga deux matchs balaa trois matchs dootoo ko gisaat mu def lu mel et amul Ken, kuy c'est un grand joueur c'est un grand footballeur mais bu ñu tu tuuti dañuy mujj wax ne ce n'est pas un bon compétiteur parce que ce n'est pas quelqu'un qui xamante ni day de enchaîner la ay match de haut niveau d'ailleurs wax change bi je pense que Rengi il prouver pour le monde entier que c'est un bon joueur parce que pour un militaire terrain défensif un militaire terrain relayeur n'est pas trop compliqué quand tu as des grands joueurs qui ont ni le soxla de Neymar bal rek de bëgg saa yore ball mën na la jox ma mais gis nga kooku bu fekkoon ne gis nga booy Verratti ni def c'est le celui qui touche plus de 1000 ballons parce que par, par, par match. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, il prend, il donne, il prend, il donne. C'est des joueurs qui ont fait ce Mbappé, Bati Di Maria, ce Mais quand tu as un mec, un, quand tu es un, un, un militaire défensif ou un mais tu dois être content de récupérer la balle et de leur donner. Parce que nga jox leen nga seconde leen saxul sax ñu delloo waat la ko mais tu cherches toujours le surnombre mais loolu mooy kaw Ngana Ngana boo xoolee moom lay wax toujours ne quand quand tu le vois jouer il joue avec un faux rythme boo xamante ni il accélère jamais le jeu on le voit accélérer que quand bu fekkee ne am na la reconquête du ballon bu la war a dem jëli bal bi di nga gis mu accélérer accélérer jeu bi accélérer accélérer foofu pour dem nangu bal pour ñëw taxawaat mais bu dul loolu doo gis Ngana tey mu accélérer jeu bi il prend tu prends la balle il fait des petites passes il prend la balle il change de côté il prend la balle il joxe ci côté à côté des fois il Verratti que ça say accéléré jeu bi dem en avant Il waree duut sax pourtant c'est un bon c'est un milieu de terrain presque défensif je peux dire mais il manque bien la balle Bon, ko à chaque fois c'est un pourvoyeur de de de ballon à chaque fois day jël balle il ay attaquant Il balle jox attaquant man la pourquoi Ngana def man dama je suis de l'avis de Touhal Daphné, il est fatigué. Moi, je pense qu'il est fatigué. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Gane Gueye, il n'a pas sa place à Paris. Ou alors, il est nul, ou alors, nangam. Non, non. On peut dire que quelque chose, je suis de son avis, il est fatigué. Je vous conseille déjà, il faut que Gana Gueye, place am tay man je na né c'était Arsenal mais je pense qu'ils ont fait un deal hier euh, hier soir avec Barté et je pense que faut fofu parce que damay xol Arsenal looloo ko manqué avec ses militaires, yafa nek avoir un Gana qui ne ko taxawal place et que tu fais juste le pressing pour ñu baña attaquer ay défense am loolu moo nekkoon mais aujourd'hui comme limay wax rek la balle est dans son camp Gana mo war a fipu pour imposer bopom à surtout bi moy deuxième année il y aura pas d'excuse amul excuse comme def li yalla def na ba mu amatul excuse je pense que son entourage ñi koy déglu dinañ ko ko wax wala moom bu seetaanee télé dina xam liñ koy wax bien kese lañ ko bëggal comme niñ ko bëggale won Sadio Mané les gens pensent que c'est des critiques c'est leur problème man ñi samay rak lan suma wara wax a waxee fu fu ma war a dëgërale dinaa dëgër fu ma war ci lan c'est pour leur bien football lu gàtt la je ne suis pas là pour top et doomu aadama di critiquer déedéet c'est juste parce que lii la xam football bi la xam sama rakk amna droit ma jox len avis problème mooy il faut qu'il s'impose il faut qu'il fasse encore ces matchs là Et être constant dans ces matchs c'est tout s'il est fatigué ou s'il est blessé qu'il parle qu'il parle à son entraîneur ñun ñep ci bokk jaar da nga la son wala nangam entraîneur bi xamné ne bëgg la bàyyi ci biir bëgg la ci biir terrain nga wax ak entraîneur bi ne ko je suis un peu fatigué wala affaire yooyu est-ce que je peux je préfère me reposer entraîneur bi day nangu loolu day xam ne kii c'est quelqu'un de vérité nga xam ne beneen match bi da ngay ñëw xam nga ne entraîneur li mu la defal defalu ko keneen da ngay rey sa bopp encore ci beneen match bu ko defee là tu deviens un compétiteur tu es compétent de suite nga xam ne match bi ak match bi ak match bi ngay enchaîner sans problème tey aujourd'hui loolu lépp boo xoolee tey première année première année Sadio Mané à Liverpool da ko doon def mais bi ñu demee ak blessure yi mu doon am ak ñoom benn instant dafa gomé loolu lépp teg tey jii y' a pas plus compétiteur que Sadio Mané te le man je sais que c'est un lion il peut le faire et pourquoi pas qu'il ne le fasse pas maintenant la balle est dans son camp maintenant moy ñaari option la am benn mu prouver wax ne li man li li nangam nangam ñëw nga gis ko ci ay match mu commencer. def nam la def contre Real Madrid wala sinon nga mu ñu expliquer né il a il a des pépins ñu mën comprendre c'est tout.